Euh, Saliou Gueye si ndi di waaw fi toll de moom euh, yaakaar naa yitte yi ak xel yi xalaat yi ak yëngu yëpp yortu naa ne mi ngi ci euh, yëngu-yëngu magal gi sunu temps ak sunu jëmm ak lépp wax jeeg xalaat yi yëpp daal fi fi toll nii ci magal ci ci wàccaayu magal gi la jëm loole loolu itam Euh, comme ni ko ci Tuubaa waxee rek daanaka li wax ne euh, képp koo xam ne sama mbëgg sa mbëgg na nga ñëw nga santale ma yàlla maanaam ci bernde kon yaa yaakaar naa bépp murit buy waaj moom euh, yaakaar naa lépp loo mos a denc sag sag sag faka njort naa ne bisu magal gi lay xaar ngir nga génne ko te ñun ci wàccaay woowu rek lanu ne àndoo koog mboolem mboolem mbokkital bi yëpp mboolem daara daara jëpp. loolu rëy na lool <laughs> loolu moom yéeme lool li ma li ma li ma maanaam maa wi jëral ndax mas manees na ko bisaal wala ñu koy ñu koy ndax làmmiñ di ko tudd daal lool daal dina dina dina xaw a yéeme lool jaajëf tawfeex